We are Seven Truth. Seven pare tey coole bëri na gis ñu wax ji bëri na gauche droite ñu bëggoon fii tey rek pour am éclaircissement par rapport ak dossier bi nga xamante ni moo nekk actualité bi tey est-ce que boo amul lu ñu mën wax ci biir mbir la lay nekk tey. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax waa Sevens di leen ziar di wax ni li xaw ci dëkk bi yow bokk nga ci ñi ma ko yëgal. parce que woo nga ma téléphone laaj ma man la yëguma li xew ndax damay doog a jóge tool sangu bay préparer pour wàcc sama magasin waaw tey euh, ba ma la owee dama bëgg am lu leer parce que dama jot information euh, selon laquelle nii euh, da ngaa porte plainte ki nga xamante ne mooy maire bi Pape Sow ba ko déggee nag ñun suñu liggéey balaa nga def dara il faut nga am aussi information ku nekk sur les concernés moo taxoon ma oo ba ma ko waxee aussi mu nekk lu bettal ñu bari ba nga ne carrément ni eh, yëgoo si woon dara tey gis nga dëkk mu mel tey boo amoon tey benn peut-être message ba lancé endroit jeunesse bi endroit waa commune man damay wax ni toujours mbir phénomène bu la dugal ci mbir tey man ba ma ko yégee yaa ma ko yëgal keneen woo ma keneen woo ma man la yëguma li xew gis naa nag population bi génn peut-être nee dañ ko arrêté je ne pas. moo tax man leen dem leen boo leen demee ngeen xool plainte bu turam ne man ay Aysatu ma nekk ci kooku bu amee rek boo leen paree boo leen ñëwee ku ci wax ak man ma tontu la ama grande surprise nag gis nga sama magasin dama ko tëj toj nañ sama oto wax ju ñaaw joo mës a dégg ci àdduna tey sëf nañ ma ko waaye na may def rek comme d'habitude dama leen a bàyyi ak yàlla kalaame leen ak yàlla te gëm naa ne yàlla dina ma àtteeg moom Mhm. kon tey euh, bu ñu ñëwee si biir dossier bi kon mën nga si wax dara loo xamante ne tey mën nga ñu révélé nii dossier bi am nga si benn part. dossier bi mënu ma ci wax dara parce que bu ma ci bokkoon yaakaar naa ne justice dina ma convoqué mënu ma ci wax dara dara mënu ma ko ci wax parce que jusqu'à présent si su woo ma kon dossier bi entre moom la ak justice. affaire politique nag nañ ko bàyyi ci ginnaaw c'est derrière local passé na romb na. tey ku am sa problème ak justice dama réglé ko mais nañu bàyyi ñàkk argument ñàkk loo wax day tax ngay tuumaal nit ki te loolu doxalul dara loolu doxalul dara parce que man bu ma ca bokkoon yaakaan justice dina ma déglu loolu wax naa la ko kon bu fekkente ni da nga am problème même man mii man naa am problème justice mais du tax ma taqal ci ma la ma dem c'est que réew mi il faut ñu dépassé yenn yi man ngaa def bu ne weng di ko di ko di ko ji franchement man je ne comprends pas ci waay yeewi askan wi gëmuñu seen bopp te mënuñoo argumenté man damay wax ni li ñuy def man si c'est moi man damay taxaw assumer samay responsabilité damay taxaw assumer samay responsabilité yaa ngi may dégg mais le cas de Pape Sow mënuma cee wax dara parce que concerné wu ma kenn woowu ci da ngeen di dem ci justice ñàkk jàpp ngeen laaj ka lan mooy problème bi moom nag moom Pape bu ci tuddee bu boobaa boo leen ñëwee am na beneen réponse mooy def ak yéen li may damay wax ni politique du dara liggéey la sur le terrain kon mbir mi du rapport de force boo xamante ni da ngay génne population bi di leen xeexloo amul kenn kuy génne population bi di leen xeexlu ñoom ñëpp a ngi denc seeni doom ci kër gi kon man message bi may lancer jeunesse bi mooy nañu majeur et vacciné am na yoo xamante ne bu ñu ko namul nangul ma sàmba nii ma dem parce que tey boo jëlee sa jeunesse wàcc leen ci terrain bi mais imagine toi li fi xew moo njaay ci ay doomi jàmbur yuy de xoolal li fi xewoon mois de mars ci ay doomi jàmbur yuy de mais ñi ci terrain bi nag ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp lan moo waral tey buñ ñeen ñoxar njaay ñu wàcc leen ci terrain bu leen utiliser bu ñu paree sànni leen mais du loolu politique man jas j'assume tey engagement bi ma jël ci politique dama koy assumer mës naa la wax sama émission bés bu ma bàyyee dama lay woo ba nga ñëw ma argumenté li tax ma bàyyi mais mbir mi man pour man entre Yewwi Askan Wi la ak APR tey benn baykat boo xamante ne daa kurti kurti ba yor otam bi pendant des années kurti kurti ba yor otam tey ñu tojal ko ko xam nga ni lii neexul neexul population bi tey ñu may traité ci wax ju ñaaw ju ne ñu ma koy traité tamit ci yaayu jàmbur ci kilifa di ku yor ay responsabilité ci dëkk bi tamit du yoon foofu tamit damay interpeller justice franchement ñu ñëw def yoon parce que lii du yoon nit génn nga koy saagay ndey te jote woog moom dara di ko waxal wax ju ne doo comprendre sama otaa ngi war ngeen di jël image yi ñu toj ko te yeneen oto bi fi nekkoon noonu lañ koy toje sànni nañ ay xeer ci biir kër gi ba sonn mais pour lan pour lan man pour man moom mi nga xamante ni moom la justice teg loxo dama ni moom man man tey man bu doon ci man bu dee defuma dara damay satal sama bopp moom Mizisis teg teg loxo bu dee deful dara na setal boppam mais bu ma woo population bi di leen wàcc terrain ñuy toj oto jàmbur yi di saaga nit di def n'importe quoi merci. We are